asalaamaaleykum euh, mbokk yi di seetaan euh, Yëgle TV ñu am mbégte ak euh, contentement di dadal ki nga xamante ne moom moo di Serigne Cheikh ñu Serigne Cheikh ñu gën ko xam ci jawriñ jiite Daïra Mouride ci diwaanu Sao Paulo réewum Brésil Serigne Cheikh ñu lay wax asalaamaaleykum. Abdoulaye waaleykum salaam wa rahmatullah ñoo ngi leen nuyu bu baax di leen siyaar di am mbégte ci teew gi ñu teew seen studio Yëgle TV. di télévision boo xam ne ni vraiment mi ngi nekk fii Dakar Liberté 6 di def liggéey bu am solo ci surtout ci wàllu immigration. voilà euh, sëñ Cheikh comme euh, da nekk immigration ba pare nga nekk ci réew bu sori. Mm. di Brésil ndax mën nañ xam euh, ñaata at nga nekk Brésil. waaw maa ngi fa Brésil maa ngi fa ça fait dix ans parce que maa ngi fa dem en mars 2008 donc mën naa ne maa ngi fa dix ans et demi maa ngi Brésil di fa daan sama doole mais néanmoins chaque six mois maa ngi ñëw Sénégal ngir xooli sama njaboot. waaw jamono ji euh, loo ñu mën a wax euh, ci nekkinu sénégalais yi nga xamante ne bii ñoo ngi Brésil. waaw nekkinu sénégalais yi li ñu si mën a wax mooy sénégalais yi vraiment nekk nañ Brésil nekkin bu rafet parce que dama leen wax toujours ne nit ki fu mu nekk d' abord moom ambassadeur la fa war a doon donc moo tax sa brésilien yi boo demee si ñoom dañ lay wax ne euh, Sénégal foo dëkk nga ne la Sénégal ñu ne Sénégal légal. donc du ñàkk tamit nag euh, li tubaab naan wax naan libre bi gëla du ñàkk peut-être mbooloo fu ñu dajee du ñàkk benn ak ñaar wala benn ñaar yoo xam ne ni du ñu nekk ci la bon voie mais nag euh, à travers daayira ñu nekk ndaje yi ñu nekk organisme nekk association yi ñu nekk dañuy véhiculer ay message yoo xam ne ni message de sensibilisation la ngir ñu mën a jaar ci la bonne voie yi nga xamee ne moom la ñu suñu mag ñu baax ñu bàyyil mooy siraatal mustaqim ñu si jaar ndax euh, yoon boobu mooy yoon bi gën a gaaw mooy yoon bi nga xam ne ma neen si am mucc ñun nag ñu yar ñu si diine yar ñu si yoonu mu yar ñu si kër Sëñ Tuubaa mu yaakaar si Ahmadou Ndoumbe ñu yaroo fa euh, vraiment bi ñu demee Brésil aussi suñu xel lu dem su lu dul œuvre jaar ko si daayira ngir mën a jëmale suñu réew kanam ngir mën a tegu si yoonu siraatul mustaqiim li nga xam ne moo tax ñu dem parce que immigration du lu dul dem daani doole ñëwaat réew ma dëkkuñu fa lu ñu fa mën a am lu ñu fa mën a nekkeet dëkkuñu fa waaw ñibbi si waat donc loolu lañ maanaam la ñuy wax. sëñ Cheikh ndax tey euh, mun nañ xam euh, lii mu sénégalais yi nga xamante ne bi ay doomu Sénégal lim bi fu mu toll ci jamono ji fi nga lim bi lim bi ñun xam nga lim bi duñ koom duñ ci mën a avancer bu baax parce que duñu am des autorités compétentes muy le ministère des affaires am aussi un directeur de Sénégalais de l'extérieur donc kooku peut-être mooy le mieux placé pour mën a wax limu sénégalais en Amérique latine ñaata la. mais moom dama dégg si benn émission am à la RTS ngi mu wax ne ñu am émi ñu am pour ñu am li mu yi bitim réew yombul ñu ngi ko estimé à 3 millions bitim réew donc kon kooku xam nga ne bu fekkee ne euh, donc moom mënul xam ñaar lañu am au di du Séné euh, bitim réew pour ñu am au niveau du Brésil du yomb ndax ñoom ñoom fi ñuy basé wu ñoom mooy carte consulaire te carte consulaire ñëpp amaguñ ko. te carte consulaire aussi mënoo si basé wu ngir am lim parce que a si basé mooy nit ki nga xam ne dafa jóge si réewum Sénégal mu metti mu daw dugg Brésil kooku bu demee bu yorul xaalis te dem ci àll bi liggéey su liggéey jee su amee contrat donc contrat bi ñu ne ko yow dimanche rek lañ la may nga pause te dimanche ambassade du ko liggéey ko mën a toog deux ans trois ans ou dix ans Brésil du am euh, carte consulaire donc comment on va faire mooy fexe autorité yi jéem a ñëw jéega ñu ngi defal ñu carte consulaire loolu donc euh, ñoom ñu ngi si yoon di si avancé mais ba léegi des na ba léegi am na ñu amul carte consulaire te bu ñuy def décompte bi aussi di def décompte ci nga xam ne day am carte consulaire gese carte consulaire dañuy wax ne boo ñëwee si réew boo amee 3 mois war nga dem sa autorité consulaire am ko ki nga xam ne dafa ñëw def 2 mois kooku wala def def def 2 mois 20 jours kooku booy def décompte doo ko si mën a boole donc pour nga am les chiffres exact moom gëm naa ne liggéey bu am bu bu métti laaj. waaye mën na yomb si ñoom ci bu ñu basé woo si daayira yi bu ñu basé woo ci association yi parce que boo demee si benn daayira à sa Paulo moo xam ne am daa da ko fekk au minimum cent personnes chaque dimanche donc euh, ñun danañ am suñu suñu carte membre am suñu effectif donc su fekkoon na ñoom en collaboration la ñuy liggéey ak les daayira ak les associations yaakaar naa loolu da gën a yomb si ñoom. du su la dégloo euh, sëñ Cheikh euh, dafa mel ni tàmbali nga. grainé lu tubaab di wax ne ay jafe-jafe yi nga xamante ne yéen a ngi koy jànkonteel yooyu donc jamono ji yan jafe-jafe ngeen di jànkonteel fi nga xamante ne moom moo di jamono yi Abdoulaye jafe-jafe yi dafa bari jafe-jafe yi bi si njëkk mooy document administratif mooy passeport carte d'identité carte consulaire casier judiciaire yooyu doomu aadama mënu ko ñàkk parce que su fekkee ne yow réew mi nga dem muy Brésil vraiment dañu yombal Sénégalais yi kayit yombal leen ko ne leen kayit yi léegi du bu njëkk nañ leen defal ay liste nga ngay ñëw bindu xaar sa tur génn nga dem déposé ji léegi nag ñu ne la yow liste yi amatul li ngay def mooy demal sa réew mu defal la un casier judiciaire bu la defalee casier judiciaire bi boo ñëwee si réew mi ñu jël sa document def ko en analyse analyse nag mooy dañuy xool ndax yow mën nañ la may ak mënuñ la may loolu yaakaar naa fekkee ne am na si Brésil rek kooku brésilien yi wàccoon na ak ñun xanaa ñi si des kay mooy ñun suñu réew casier judiciaire yi bu ñëwee fii ci ambassade bi nekk Point E dafa yàgg gars yi booy dañ koy def ay 7 mois 6 mois pour mu mën a dellu su ñoom loolu aussi ñu ngi koy déplorer dem nañ fa waxtaan nañ si ak ñoom peut-être mën nañ si am suite favorable xëy na jotuñu gis kilifa gi suñu temps aussi mayuñu ko ñu war a delluwaat si yeneen activité waaye ku ñu fa fekk muy nga xam ne mooy euh, réceptionniste ba waxtaan nañu ñun wax nañu aussi lan moo waral lenteur yi mooy dem gi nga xam ne document yi da koy dem à euh, Brasilia doo ko ñëwaat ci ñoom xam ne carte consulaire day am comme genre visa lay doon hologramme lay doon comme genre visa la moom lañ si def ñu doog leen koo mën a yónnee nag ñoom ñu doog see jotat encore. est-ce que jamono ji aussi euh, ba léegi fa nga xamante ne moom moo di réewum Brésil amul euh, doomu Sénégal yi nga xamante ne bii am nañ jafe-jafe ak wallu yoon ba ñu ni ba ñu jàpp leen ñu nekk ci euh, lien carcéral. si am na am na am na mais bariwul parce que. bu fekkee ne Brésil dafa am près de euh, quatre mille waa trois mille sénégalais nga fay compter dix sénégalais une dizaine rek yoo xam ne ñu ngi ci population classe salariale bi euh, néew na mais aussi ñu ngi jéem a xool la ñuy def ba mu gën a mën a wàññeeku donc di di di di sensibiliser nit ñi di waxtaan di am ay avocats yoo xam ne aussi ñu ngi ciy ànd ak ñoom pour dimbale si liggéey boobu ngir mu gën a mën a yomb bi nga xam ne sénégalais yi euh, ñu ngi ci jotatee dañ leen mën a relaxer ñi nga xam ne aussi ñu ngi ci jàmm. ñaan suñu borom dafa leen jàmm jaar aussi si yoon yi nga xam ne mooy yoonu njub mooy yoonu siraatal mustaqim ba loolu du leen dal parce que may rappelé ne euh, kaso du du rek def ci bëri moo say dem mën na mën na dem kaso ci ci nekk si njub nekk si yoon boo xam ne xamu ko dem si kaso ci ñàkk xam yoon bi mu nekk nit aussi mën na nekk si yoon wu jub parfois dem kaso mais la la la moom c'est très rare waaw c'est Ah, nekkinu sénégalais ba léegi fa nga xamante ne moom moo di mu Brésil est-ce que ak lu mu jot wax nii ak euh, nu nga yàggee foofu est-ce que amul sénégalais yi nga xamante ne tey am nañu nationalité euh, ci réew yooyu. si am na am na am na am na et puis nationalité sax booy xool léegi dafay gën a yokku parce que bu fekkee ne da nga am nationalité sénégalaise donc sa nationalité sénégalaise boobu nga am nga bëgg document administratif mu jafe donc jaf jafe yi bu ñu ko jafeel mooy waral nga dégg ñu naan sénégalais ñu ngi wut. donc ci kaaw nationalité yooyu aussi ma si indi ay leeral donc ñu ngi wax ne nationalité mas na dégg madame l'ambassadeur mu wax ne nationalité brésilienne ko am dangay ngay ñàkk sa bu Sénégal parce que loolu entré gul en vigueur maanaam loolu nekkagul loolu fa muy nekkee mooy su fekkee ne réew mu mel ne Allemagne ou Suisse da fa dem di def demande de nationalité ñooñu dañ lay wax nga dem sa réew wala nga dem sa ambassade def une lettre de renonciation maanaam lettre de boobu moom ngay def jox ko autorité yooya da nga renoncer sa nationalité sénégalaise doo ko am nationalité suisse wala allemagne wala dëkk yi ko ratifié mais Brésil ratifié wul loolu donc boo ko amee nationalité Brésil ça veut pas dire que yow da ngay ñàkk si national Sénégal no loolu amagul xaw ma nag ba xam autorité yi dañ siy liggéey ngir dindi ko wala ngir mu dindi mais nationalité moom donc ma ngi fay commencé bari yomboon na bu njëkk mais léegi mi ngi gën a jafe ak loi yu bees yi parce léegi Brésil da ngay def ay cours. am na ay cours yooyu def bu ñu naan self brasse temps yi sax dégg naa am na beneen yeneen ñu génnaat yoo xam ne day gën a jafel nationalité waaye yooyu lu jafe-jafe yooyu procédure la yooyu jaar rek ndax jàng booy def genre examen booy def ngir mën ko boole kayit yooyu ngir mën a dugal nationalité bi mais nationalité yi moom moo ngi fay gën a bari moom. est-ce que tey euh, sëñ Cheikh waxtu bi jotul euh, nguuru Sénégal euh, bàyyi leen xel ci li nga xamante ne moom moo jëm ci wàllu. député donc diaspora affaire yi demee na parce que gis nañu am na réew yi nga xamante ne bii am na ku leen toogal si pencum ndaw réew est ce que waxtu bi jotul waaw depuis xam nga diaspora dañuy wax ne diaspora mooy quinzième région diaspora def mais loolu dafa yem rek si wax parce que man may wax ak yow nii su dul femme boobu may gis à l'Assemblée nationale ñoo naan député diaspora ci quinze députés yi ñuy wax xaw ma si benn su dul femme boobu maam jaara moom ko sali yow passage su moom mi moo si gis mu toog assemblée di wax ci diaspora man xaw ma benn député diaspora ñi nekk Brésil aussi mosuma dégg kenn ne diw député diaspora la mi ngi barab sàngam xaw ma sax fan lañ nekk mm, à vrai dire leen a gis mosuñ ñëw Brésil mosum moo dégg aussi ñu ne ñëw nañu en Argentine ndax Brésil ak Argentine ça fait deux heures cinquante cinq de vol luy xew Brésil mooy xew Argentine luy am Brésil mooy am Argentine Sénégalais yi dañuy def la navette entre le Brésil et l' Argentine donc ñun député diaspora moom ah <laughs> gisuñu suñu moom autorité yi autorité yi aussi jegewuñ ñu parce que jegewuñ ñu mooy gisuñu leen bu amee ay ay ay jafe-jafe sénégalais doo gis benn autorité bu taxaw président daayira ngay gis yenn gox yi wala nga gis président daayira wala président association yooyu doo ngay gis mais nag doo gis sénégalais bu am jafe-jafe nga dégg ñu ne autorité def na les constats ñëw na xool gis na non non loolu moom amul Brésil. et pourtant sëñ Cheikh euh, euh, amoon na benn mission bu jiitu réew mi euh, yónnee woon Brésil. yàggul parce que boo ne gisoo leen autorité yi hmm. bon dafay xaw a xaw a lëndëmal quoi. waaw waaw waaw day lëndëmal parce que euh, ñu yónnee kooku ñëw bi mu ñëwoon loolu mooy prouver que nag gisuñu leen xam nga tey bu ñu toogee ba sénégalais ñu assassiné un dëkk bu ñu naan Cascavel wàllu ndak ñu assassiné ko ñun ñu def la déplacement dem ànd ak El Hadj Cheikh Anta mi nga xam ne mooy président association ba. sénégal yi nekk euh, à Paraná Brésil ça fait vingt sept états ñu dem foofu def une marche ànd ak la presse locale mooy presse brésilienne bi ñu ànd ak ñoom mu def répercussion au niveau de Sénégal vidéo yooyu jàll si média bi Sénégal jàllale naa fa benn euh, benn spot euh, RFM ak Yo Maroon ak ay live yoo xam ne nii suñu jigéen Maty Trapo mi ngi koy def ak yeneen réseaux sociaux yi ñu dugg si ba mu def répercussion ba le ministre Thierno Lo ñu koy saluer au passage ci liggéey bu solo parce que bi mu see vidéo yi moom ci la ma woo dama Cheikh man la monsieur ministre Thierno Lo euh, monsieur conseil du président gis naa sa message dama bëgg nga envoyé ma ay plus de preuve pour ma mën ko egg président bi ma jëlee affaire envoyé ko ko ci la ko eh, envoyé président boobu daf fekk mu tukki mu nekk je vais envoyer mission def na aussi li ma waxoon mission bi envoyé na Sori Kaba donc Sori bi mu ñëwee waaw bu ñëw woon na ma maa ngi ñëw ma ne ko bisimilah bi mu ñëwee woo nañ responsable yi nekkoon foofu ci benn salle boo xam ne y avait une trentaine de personnes toog nañu waxtaan mais bi ñu toogee waxtaan sori euh, donc nit ki yaakaar bu ñu la yebalee si réew nga ñëw pour régler problème da nga war a xool fan moom fan la problème ba nekk mais yow bu fekkoon ne ambassadeur ba fa nekk da ngay def liggéeyam ba ko war ñun duñu du ñu yuuxu ba Macky Sall di ko yebal moom muy ñëw donc nan la mën a ñëwee nag toog na ñun di ñu révélo naan kii kii ngeen di gis mooy ambassadeur bi ci trois ambassadeurs yi gën a compétent ci monde bi Sénégal moom si la bokk loolu xel sax da ko nangu parce que bu fekkoon ne liggéeyam def na ko ñu waree moom du jar muy déplacé du ñëw kon loolu moo waral ma ne la autorité yi gisuñu leen booba lañ leen gis booba la Souri Kaba ñëw def fa des tas de promesse promesse bi ci gënoon a tembare mooy dafa waxoon ne maa ngi Brésil avant may jóge Brésil mission du jóge du sax Sénégal dana jóge États-Unis ñëw defar leen seen passeport ça fait ba fi may wax ak yow nii xay na la ko yàggaloon mooy dañoo waxoon dañuy recensé donc recensé nañ yàgg na ça fait trois mois na mission bi ñëw defaral ñu seen passeport suñu carte d'identité jotaguñ si carte euh, carte carte d'électeur yi jotaguñ si wax nañ ni am na lim bu jot a ñëw ça fait vingt kilos bareegul am na aussi lu des Sénégal te ñi ngi xaar autorité sénégalaise yi euh, xaw ma ñi ngi xaar Sénégal pour mën ko distribuer donc la fa ñëw la fa jot a su néew sax distribué guñ ko Brésil euh, parfois bu ñuy envoyé émission di def ay passeport bu ñu koy envoyé du parce que dañ koy envoyé mooy dañuy xool dëkk bu leen neex rek ñu ne Sampolo 3 jours Rio 3 jours Porto Alegre 3 jours te foofu la ma nekk ci Sénégal kenn mënu la wax nu mu toll. donc loolu Dakar naa ñoom war nañ si liggéey en collaboration ak ñi nga xam ne ñooy les les associations nga xam ne ñooy les responsables ngir ñu leen liggéey bi donc def nañu recensement envoyé nañu leen bi mais ba léegi mission boobu ñuy wax dafay jóge Amérique ça fait 3 mois ba léegi ñëw. mission bi donc ñëwul euh, am na ñu nga xamante ne ba léegi jotuñu seen i ad document administratif. no seen am na ñoo xam ne nii jotuñu seen i carte d'identité bokkul ak passeport passeport mission bi dafa waroon jógee États-Unis donc ñooñu ñi nga xam ne seen passeport dafa jeex ñi ngi xaar ba léegi man mi di wax ne yow sama passeport bi ngi jeex en juillet 2019 donc maa ngi xool sax ba sama baxam avant may dellu dinaa ko mën a defarluwaat ci Sénégal doogu yóbbu parce que su ma demee pour mën a ñëwaat euh, mën na jël temps avant boobu mën a expiré. waaw sëñ Cheikh ñu gis euh, yàggul noonu euh, am benn bon révolution moo ko mënee wax noonu bu am Brésil hmm. euh, ci wàllu ñi nga xamante ne ñoom ñooy jiite réew mi hmm. ñu gis Jair Bolsonaro hmm. ci bopp réewu Brésil te fu mu ne nii ñu koy méngale ak Donald Trump est-ce que loolu indiwu leen jiixi jaaxa wala sax ci tànge waaw loolu mën na indi jiixi jaaxa parce que Jair Bolsonaro yi comme ni nga ko waxee moom c'est un copie Trump la donc ay ay ay message am dafa dafa violent woon bi nga xamee ne mi euh, jël réew mi wax na ne donc band yi dana leen fa jëlee wax na ne borom ñaari tur yi dañu bëri Brésil donc dana leen dana dana dana dana dana dana ak ñoom wax na ne aussi euh, góor ji nga xam ne seeni soxla dañ leen di fitnaal loolu dañ fi jóg jigéen dafa war a dem liggéey du rek da ngay wut say document basé wu ci benn góor am ngeen am problème nga jël alalam mu nekk si mbedd mi loolu wax na si wax na aussi si beneen discours ba tudd sénégalais wax na sénégalais yi ñu ngi ñëw ci dëkk bii ñëw ci légalement wax yu bare bare bari donc loolu am na ñoo xam ne nii donc tiital na leen waaye nag euh, yaakaar naa waxu campagne la rek parce que léegi euh, adduna bi dafa changé léegi ñi nga xam ne ñoo def politique extérieure ñooñu dañuy gën a hostile ci immigration loolu day tax seen population récupérer leen parce que loolu léegi moo xew àdduna bi booy xool en France Emmanuel Macron li muy toog dégg nga ay waxam donc euh, boo xoolee Donald Trump bi muy ñëw gis nga ay waxam donc loolu dafa xew ci àdduna bi mooy képp koo xam ne yaa ngi jël mm, bëgg falu ci sa réew da nga dal ci kaw immigration pour sa réew man la ne ah yow kat kon ginnaaw yaa ngi dal ci immigration boo toogee ñun waa réew mi kon ñun danañ ci gisuñu suñu bopp ci réew mi donc loolu la. <laughs> Euh, gannaaw euh, yow yaa nekk euh, fi nga xamante ne moom moo di réewum Brésil ñu am kontante ak mbégte dalal sunu émission donc invité du jour jamono ji tolluwaayu Brésil boo ko naree natt wala boo ko naree wax gannaaw yàgg fa lu mat dix ans. fu mu toll jamono ji. waaw Brésil xam nga dafa yaatu Brésil ça fait vingt sept états vingt sept états yi on a compte deux cent cinquante six millions d' habitants Brésil fu mu toll mooy dëkk bu dëkk bu. Euh, dëkk bu euh, économiquement dëkk bu baax la parce que mi ngi bokk ci BRICS bi donc boo jëlee euh, cinq pays yi gën a riche ci monde bi am na yeneen pays yu ñu si toftal yu naan BRICS donc ci BRICS bi ci la Brésil bokk gannaaw Brésil la Russie Inde Brésil Inde waaw donc si BRICS la bokk donc da lay ne dëkk la bu am richesse contrairement ak ni ko Sénégalais yi gisee. parce que boo nee Brésil rek dañ ne non dëkk boobu dëkk football la dëkk bi amul dara contrairement parce que boo ñëwee à Sao Paulo dëkk état bi ñu nekk ñun ça fait quarante millions d'habitants Sao Paulo am na métro am na train euh, Rio de Janeiro am na métro donc euh, à Recife am na métro boo demee à l'état de euh, Brasilia fi ambassade bi nekk am na métro donc Brésil économiquement réew mu développé la c'est pas comme ni ko ñu bari yaakaare vraiment ñoom aussi ñuy ñoo xam ne nii bon booruñu lool si étranger comme ni ko nit ñu foogee donc c'est un aussi un peu waaye ñoom bu dee ñun ñu fa nekk de 2008 à maintenant vraiment booruñu lool lool lool si si si sénégalais loolu nag nga xam ne moo ko fa jiwoon mooy euh, Lula da Silva Lula bi mu toogee moom dafa xëcc africain yi vraiment yombal leen kayit yombal leen intégration ci réew mi moo tax euh, boo xoolee même bu dul sénégalais am na yeneen réew yu fa nekk di fa émigré su mel ne euh, nigériens yi bari nañ fa trop donc libanais yi bari nañ fa trop chinois yi bari nañ fa trop dañ leen ubbil parce que booy xool sax commerce brésilien bi donc booy xool booy wax rek naan chinois yi ñoo koy foofu. leneen li nga xam ne daal moom euh, metti naa ci Brésil ci ñun sénégalais yi mooy administration daf ñu sori parce que booy xool ñun man su ma bëggoon passeport nekk à Sao Paulo. il me faut quatorze heures de bus pour me relier Brasilia pour mën a def benn document administratif donc mën a mën a mën a def dara donc passeport sax mënuñu ko fa am donc su ma bëggoon par exemple benn sauf-conduit war a ñëw Sénégal sama passeport jeex il me faut ma dem Brasilia wala ma envoyé ko par courrier posto mu egg si ñoom nga xaar ñu envoyé la ko donc euh, regroupement sénégalais yi au Brésil ci ñaari état la rek donc mi ngi nekk à Sao Paulo euh, Porto Alegre donc ñaari état yi ñoo ëpp sénégalais si Brésil donc ñoom ñaari état yooyu dañu soxla ay consulat dañuy soxla ay consul général yoo xam ne dafa leen jege mais bu fekkee ne da nga jël ay consula yóbbu ko dëkk bu mel ne Recife donc bëriwul sénégalais dëkk bu mel ne euh, Paraná foofu sénégalais yi tamit ñu ngi fay commencé bari parce que boo boo jëlee Sao Paulo jël Porto Alegre Paraná nga si teg moom moo ëppaat sénégalais. donc mais fi ñu leen defal consul consul honoraire daf leen sori donc loolu daf leen defal ay handicap yoo xam ne ni dana tee ba ñu bëgg a amee document d'identité daf leen di jafe parce que mën naa fa lim ay nit ñoo xam ne ni ba léegi amuñu carte consulaire parce que jour bi ñu leen di may c'est pas un jour ouvrable te duñu mën a déplacer wu dem euh, di wuti carte consulaire yi bon sëñ Cheikh euh, Diaw su ma la déglu bu baax dafa mel ni rek donc yéen seen mbëbët fu mu ne nii. moo di fépp sénégalais nekk donc ci Brésil. mu am benn produit nga xamante ne donc daf leen di jege. loolu lañ jege bu ñu amee jafe-jafe ci taxaw. loolu loolu loolu nekk na nekk na jafe boo xam ne ni bu bu mag la te su ko euh, le defoon da réussir ku euh, boo xam ne ni donc yàgg na fa yàgg na yàgg na fa. Euh, dégg naa aussi euh, madame l'ambassadeur bi mu fi ñëwee mën a de 1960 ak léegi euh, Brésil ñi nga waaj bëgg bokk ci vote yi loolu dëgg la ñu ko ci félicité c'est un effort waaye doyul su ñu yónnee wax naa ko nee naa ko soo ñu yónnee une mission pour mu ñëw defal ñu passeport yow da nga war a veiller à que tous les sénégalais yu jeexal passeport am passeport da nga war a veiller à que bu fekkee ne mission carte mi ngi ñëw ak carte électeur da nga war a veiller à ce que tous les sénégalais ñi nekk Brésil. yu bëgg a voté soit inscrit mais bu fekkee ne Brésil dafa am 4000 personnes nga am fa nga am fa 1000 1000 inscrits ou 1500 inscrits mais c'est pas suffisant loolu te loolu la ci ci ci ci nga xam ne dañoo am yéen a voté am yéen jël seen carte sànnil ko nit fii ci réew mi donc loolu des na lu des des na ci wàllu administration. lenn li nga xam ne loolu loolu notuwaar la nag loolu d'une manière générale ci ambassade yëpp la ambassade yi ñoom. ils sont un peu arrogants ñoom dafa mel ne sénégalais yi seeni noonu lañ maanaam dañoo am ay sénégalais te loolu warul mën a nekk ñun suñu jugee suñu réew tëste si daan doole ba dem si réew ma jàmm moo ñu yëkkati liggéey jàmm yàlla nekkuñ si lu bon nekkuñ si trafic parce que Brésil mooy l'un des boo xam ne ni doo dégg ñu ne mën nga mën na mën nañu ne sénégalais mi ngi def loolu ne Brésil mais doo dégg ñu ne la sénégalais mi ngi def trafic de drogue loolu moom alhamdulilah mën naa wax ne amul Brésil ak Argentine trafic de noo amu fa yeneen dëng wala yeneen jumte mën naa am si ñoom mais Brésil doo fa dégg benn sénégalais bu ñu la day trafic de drogue donc soo amee doomu réew yu mel noonu nga war leen taxawu war leen a jege ngay jël ay hostilité maanaam boo wootee sax tey boo jëloo sa téléphone woote fa da ngay da daal di sentir de l'arrogance ñoom suñu ñëwee si la defaral document administratif dañuy mel ne ñooy ñooy sa ñooy sa maanaam ñooy sa lay gëdd di la pressionné non yéen ni ngeen war a def yéen ne ñu noonu doomu aadama soo fekkee ne dafa ñëw si réew wàcc terre d'accueil waa réew mi accueillir ko yow mi nga xam ne da nga ko faa fekk si yow sa mandat mënut a ba mu ëpp cinq ans donc war nga mën a négocier ak moom ak moom ko sa côté waxtaan ak moom nga résoudre ko parce que ñun lu ñu bëgg lenn kese la xaalis bëgguñu ci réew ma kër bëgguñu fa dara lañ fa li ñu bëgg mooy document administratif donc yaakaar naa euh, relation ambassade ak Sénégal yi fekk si réew ma war na gën a mën a ratax nañ leen ubbil seen que ay nit lañ comme ñoom peut-être jàng mais aussi parce que da ngay gis sax sénégalais yoo xam ne ni dañuy jàng fii ba am ay diplôme dem émigré ji donc kon bu ñu dajee si réew ma dañu war a maslaa dañu war a nekk benn dañu war a négocier parce que ñun dañ leen yombal liggéey bi lu sori ka ba ñëwee donc waaw naan yéen da ngeen war a organiser wu man a ko sori ñun on est bien organisé Serigne Touba lam ñu defal Maam Alaaji Malik defal ñu ko ba ñu baax ñu defal ñu ko amatul si àdduna Sénégal li mu mën a am si bitim réew benn réew amu mooy ñun am nañ ay dayra ba nga réew nga dégg ñu la am na dayra en Afrique ba nga réew nga dégg ñu la ak dimanche dañuy toog jàng alxuraan xasaayit zikur la jël seen xool ku xool ci mbooloo mi kan moo néew doole ñu dimbale ko loolu ubbi koy gis ak ak ak réew yi nga xam ne am nañ ay ay am nañ ay murit donc immigration sénégalaise war nañ ko gën a mën a promouvoir mais bu ñu jël ay hostilité du nekk ay protagoniste ñun ak ambassadeurs yi. bu ñu nekk ay ay noon mais nag bu fekkee ne ñoom dañuy noonoo wala ñoom dañu gis na ñii kat nangam wala ñii la non daayira moom c'est pas reconnu par l'état mais daayira bu reconnu ko par l'état daayira mooy association dañu war a reconnaître parce que moom bi mu ñëwee moom ambassadeur wax na ne ñun su cas de meurtre amee ñun lu ñu mën a dajale en vingt quatre heures moom motul budget mois donc kooku bu dawul jëm su ñun fu mu jëm wax na aussi ne ambassade bi mu nekk bi nga xam ne moom la nekk ambassade bi mu nekk nee dem na fu ne mais ambassade bi environnement ambassade bi moo gën a bon si ambassade bi nekk si monde bi loolu rusu nañ ci senegal sax wax na aussi benn miir bu fa daanu jafe-jafe yu fa am boo da nga koy mujj yërëm mais du noonu ñun ay noble lañ ñun ñu nekk ay nit ñuy ñuy yërëm sénégalais noble la Sëriñ Tuubaa jaar na defal lu ñu loo xam ne nii àdduna boo doon wër amul et puis Sëriñ Tuubaa dafa gore gore bu mu gore mooy. boo demee en Tunisie Tunisie lu fa am euh, au Maroc lu fa am buur est-ce que yaa ngi fay dégg coow ana en Arabie Saoudite lu fa am buur est-ce que yaa ngi fay dégg coow est-ce que xam nga li waral loolu mooy Serigne Touba dafa gore parce que tey gore moo tax ba mu ba mu gañee tubaab yi mu bàyyi leen ñoom ñu ngi lif réew mi ba léegi mais su ko neexoon li nekk am Maroc am fa li am Afrique li am li am Arabie Saoudite am fa mooy jël les xalif généraux def leen ñu ay ay njit jël lay jëriñ def leen ñu ay ay ay ay ambassadeur coow lu jeex mais nag gore gu Serigne Touba gore moo tax ñoom ñu am jàmm kon ñoom fu ñu nekk war nañu delloo njëkkal seriñ Touba war a bàyyi di wax ne daayira c'est pas reconnu c'est très reconnu daayira dafa am ay kayit am CNP am di def liggéey bu mucc ayib bu Sénégalais décédé ñu dajale sur le coup indi ko Sénégal donc ñoom il faut ñu reconnaître leen cas de yi day am au Brésil. xam naa après sax da si ñëw maa ngi amal kàddu gis nañu tamit comme ko waxee diggante deux de meurtre waaw donc loolu boo ko expliqué sax peut-être yi ni mu demee nit ñi dañuy yàpp ne da wax noonu rek di dem mais parents yi nga xam ne ñoo éploré ñu ngi may dégg boo xoolee mi ngi commencé le 4 avril 2015 benn Sénégal bu ñu naan Cheikh Seye lañ ko fekk à 60 kilomètres ci dëkk bu ñu naan Porto Alegre état boobu ñoo dañ ko ba wax ci ndox mi gars yi bàyyi mu jàll. le 19 juin 2015 benn Sénégalais bu ñu naan Moussa Diop ci appartement bu mu dëkkoon lañ fekk mu faatu mu wax nañ ne courant moo ko maas le 26 juillet mois 2016. benn Sénégal bu ne Cheikh Tidiane Ndiol Casillas de Casillas de Sul dafa doon discuter ak benn brésilien mu dóor ko bala fetal mu faatu le 6 janvier 2017 Bassirou Diop doon liggéey ci benn restaurant à Porto Alegre moom Bassirou Diop dafa wàcc di ñibbi këram ñu dogale ko dóor ko bala fetal mu faatu le 18 5 mois 2017 ñun Sénégalais bu ñuy wax Cheikh Diakhaté ci état bu ñu naan euh, Porto Alegre aussi ci dëkk bu ñu naan Passo Fundo moom dañ koy yeew si lal taal ko jëppit ba mu tàkk. comprendre nga euh, le 27 6e mois 2018 bi di juin 2018 Mamadou Amad Dem maa ngi waa jaale wala yaayam sax parce que jaar naa fa à Nioro jaale yaayam di soxna Dramé di ku baax vraiment may mën a Dramé maa ngi koy jaale waale moom à Bahia benn état bañ ñu naan Salvador donc fekk nañ ko muy jaay ñu hold up ko mu bañ ñu dóor ko ay bal mu faatu le vingt vingt quatre septième mois euh, falu Ndak moom faat nañ ko. ci euh, moom it discussion ñu jël canivette dóor ko si dënn mu faatu encore cas yooyu am na euh, tout dernièrement à Sao Paulo am na Assane Diop Assane Diop benn Sénégal boo xam ne ku baax nekkoon si daayira murid bi demoon bi jaay moom it am ku mu discuter kooku dóor ko bala fetal mu faatu euh, Pape Modou Ndaw en janvier bi ñu jàll 2007 lañ ko dóor ñetti bal moom aussi dafa faatu yaayam mi ngi fii à Dakar soxna Anta Soare maa ngi koy jàlle bu baax As Diop Santa Catarina la nekkoon benn dëkk bi ñu naan moom it tout dañ ko dañ ko camion moo ko fiit mu faatu yanu andi xoolal ma les cas de meurtre la nga boole ci en Argentine Argentine de janvier à maintenant am na benn sénégalais bu fa nekk boo xam ne nii dañ ko assassiné woon ba léegi corps bi mu ñëw ñëw parce que nee nañ dafa am problème autopsie mais autopsie mën na yàgg ba am un ba am huit mois neuf mois c'est pas possible donc foofu Sénégal war na fa liggéey liggéey bu am solo. assassinat yooyu nag su amee ñoom dañuy yor seen rajo ak seen i télé dem si télé yi dem si rajo yi waaw léegi am na boo xam ne nii sax Mankeur Ndiaye moo fi nekkoon ci benn cas de man Mankeur wax ne gouvernement bi dana jël en charge si or que c'était pas le cas ñun daayira yi dajale au dimanche ak association dajale suñuy cinquante réal cinquante cent réal cent indi cas bi indi indi indi indi corps bi ak document administratif bi indi corps bi au Sénégal jël xaalis ak jaal jébal ay mbokkam donc loolu bu buñ koy def ñun dañ koy def en tant que jullit am borom jullitam en tant que taalib ak borom taalibeem mais gouvernement bi nga xam ne moom gouvernement sénégalais la moom lan la war a andil famille bi xanaa maa ngi koy wax monsieur le ministre danaa ko yéen monsieur le ministre xanaa su fekkee ne sénégalais décédé na ñu yenoo ko Brésil ba Sénégal andi ko yéen le gouvernement avec l'aide du ministère des affaires étrangères war na fexe ba xam kooku kan mooy ay paanam ak fan la dëkk. ñu def une délégation dem fan indemniser leen wala bokk ñu jaale leen mais loolu amul mais lu loolu amul aussi da ngay toog nga bàyyi noonu bañ a wax mais loolu amul yaa ngi jëlaat média bi naan waaw Sory Kaba di wax naan waaw gouvernement bi day dimbale deux cas de moo fa mas a am remboursement deux cas de meurtre moom la ñun ñun daayira yi mas a jël xaalis envoyé corps bi gouvernement bi gouvernement bi remboursé ñu remboursement yooyu may leeral na su ñëwee kenn lekk ko kenn naanu ko dañ ko jël def ko si benn kees bàyyi ko.

léegi loo ñu mën a wax euh, ci Argentine ak naka la yëf yi tëddee foofu ak sénégalais yi fa ne. Argentine maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp vraiment samay nit ñoo fa nekk samay coloré di profité ci occasion bi di jaale suñu Yankhoba Gueye mi nga xam ne mooy jiwruñu fédération daayira Argentine yi moom waajuram dafa làqu Serigne Modou Gueye ñu koy jaale ñu jaale mbokk mboolem ku nekk Amérique latine Argentine Abdoulaye booy xool moo ak euh, Brésil c'est le même problème. parce que en Argentine boo demee la ñuy def Brésil la ñuy def Argentine mooy gars dañuy jaay commerce la ñuy def donc euh, la plupart donc euh, Sénégal Argentine moom su ay cas d'assassinat donc booy xool Argentine euh, ku ñu naan Massar Ba moom foofu la nekkoon nekkoon fa ci association bi ñu assassiné ko donc moo jul fenn am na benn benn booy aussi bu sant Samb boo xam ne nii ma nga fa yàgg na fa depuis janvier lañ ko assassiné woon ci biir otoom. ba léegi corps bi ñëwagul Sénégal nee nañu affaire la mais autopsie yaakaar naa bu doon autorité gouvernementale def nañ seen liggéey Macky Sall dem ba Argentine war na mën a booy bi def ko si avion indil ko ay mbokkam xanaa loolu waroon na mën a nekk et damay wax ne dañu am échec diplomatique en Argentine. lu tax parce que réew mu toll ne Argentine nga am fa de cinq mille à dix mille sénégalais mënoo fa am sax un bureau consulaire kooku échec diplomatique laa ko mën a tuddee. bi fa sori Kaba ñëwee bi ñu ko waxee dafa wax ne non euh, ambassade ambassade bu dépendre ci nombre de sénégalais mais ambassade bu dépendreul ci nombre de sénégalais lu muy ci la muy dépendre parce que ñoo fa nekk si xaalis yi ñu li ñuy daggee quittance xaalis yi defee suñu demee règlement administratif ci du ko bàyyi ci leen mu fay donc même su fekkee ne ambassade ba ngay ubbi amul impact ak réew ko ubbi mais dana impact ci ci sa ci parce que sénégalais dinañ fa dem defar ay documents administratifs Argentine xool. su ñu soxlaa ñoom tey un casier judiciaire dañ ko légaliser Brésil de Abuja lañ koy légaliser imaginez moom boobu document war a ñëw. Abuja Nigéria Nigéria wala ngeen affilié mais pourquoi pourquoi rattachement boobu sax wërul sax ma rattachement ñoom dañu war a am bureau euh, dañu war a am ambassade parce que bëri na Sénégalais. suñu wootee woon tey dañuy defar passeport lu mu dee dee dee sénégalais Sénégal mën na fa récolter benn 10 millions benn 5 millions ci passeport yi mën na leen fayal seen fonctionnaire yi foofu mën na leen fayal bu ñu amee bureau consulaire seen location ci quittance ak timbre ak ak li nga xam ne Argentine moodu moodu yi ñu ngi koy injecté ci réew mi ñu ngi wax 1000 milliards mais c'est faux ñoom xamuñu sax ñaata la moodu moodu yi dugal parce que li nga def sa poche bokku si marchandise yi nga jënd foofu ñoo fii da ko bokku si oto ba mu ko jënd wala leneen la mu ko jënd indi ko fii bokku si ñoom li ñu déconné donc ñoom xamuñu apport émigration la muy indi ci réew mi et puis impact boobu aussi impact social impact culturel impact religieux yëpp ça compte ñoom waruñu compter rek si xaalis waruñu compter si aussi réew mii kat nangam nangam Argentine bu fa sénégalais bare ba mat fa cinq mille à dix mille Sénégal war naa def le tout am ambassade président Macky dem na fa bu yàggul war na fa demaat le 30 novembre bi donc peut sénégal Sénégalais yi danañ ko wax pour mu jéem a def loolu. mu am leneen loo xam ne ni président association ba fa nekk Arfan Dieng ñu ànd ko Moustapha def na ko lu am solo muy dafa am lu ñu naan signature de la convention euh, de la haie convention de la haie dafay faciliter les émigrés le document administratif ratifié nañ euh, donc euh, jël nañ ñoom document bi waa Argentine ba def pétition bi ba signé ko jox ko Macky Sall Euh, Macky Sall la waxoon ne bu ñëwee dañ si liggéey mais ba léegi ñoom ñu ngi xaar convention de la haie boobu ba xam lu euh, ñuy mujjee ak ak moom mais Argentine li ma wax ci Brésil moo nekk Argentine daayira moo fay liggéey ak association les moom problème la ñu am les mêmes documents administratifs ñoom sax ñoo ñu gën a mexile parce que document bu ñu bëgg duñ ñëw Brésil bu dee légalisation la Abuja lañ koy yóbbu donc loolu di mbir moo xam ne nii mbir mu doy waar la. Abuja ak euh, euh, xam nga ne euh, Argentine soo na donc loolu gouvernement bi war na si liggéey bu baax a baax dimbale waar réewam dimbale waa Argentine média média bi aussi daf ci am impact parce que booy xool en Amérique latine yaakaar naa su ma jumul benn représentant média moo fa am te mi ngi nekk à Salvador de Toubab Ndiaye lañ koy wax je pense yaa ngi koy dégg Toubab Ndiaye correspondant RFM moom moo fa amee correspondant donc yeneen télé yi nekk Sénégal ak rajo yëpp booy xool amuñu correspondant en Amérique loolu aussi dañ leen encla leneen i enclavé ak réew mi donc jot na ñu lancé un slogan le désenclavement de l' Amérique latine donc loolu maa ngi si liggéey tamit ak ak yeneen nit yoo xam ne ay bonne volonté lañ du loo xam ne dañ si liggéey aussi pour di si wut xaalis wala di si wut dara dañ si liggéey ngir euh, gën a jege média Sénégal bi gën a mën a lancé Brésil euh, Amérique latine bu ñu mën a rapproché wu parce que Amérique latine booy xool ci histoire boo gisee ni mu mel nii Sénégal yéex fa dem euh, yaakaar naa moom lañ mujjee ci mujjee découvrir ci la bokk parce que moo tax sax les portugais jël ko ñoo ko doon xëccoo ak euh, les italiens les allemands mais les portugais ñoo ko mujj coloniser le Brésil donc Amérique latine booy xool yëpp euh, portugais yi ñoo fa ëppale donc anglais yi booy xool Argentine am nañ fi benn île bi ñu naan Malvinas boobu Angleterre moo ko moom booy xool sax relation Sénégal. ak Argentine boobu si mu brouillé woon autant ci Malvinas boobu ci la jóge woon parce que euh, bi nga xam ne Angleterre mi ngi di bombardé Argentine pour war a jël île Malvinas boobu je pense que Sénégal moo leen serviroon de base donc ci ci ci ci ci ci yooyu si la bruit yu jóge woon mais mu bu si bruit yu jóge aussi euh, président ñëw di un président boo xam ne dafa dafa judd après l' indépendance gis na Nigéria am na un ambassade en Argentine mais président Macky Sall war na dimbale waa Argentine wuti leen fa ambassade bu mu leen sax boolee ak ki nekk Brésil parce que nekk koo xam ne nii mënut a lijjanti problème Brésil soo ko joxee Argentine da sonal waa Argentine na leen wutal un ambassade digne boo xam ne nii dana humble dana dana dana def la Sénégal yi bëgg dana dana ci man de maa ngi prévoir benn lettre ak waa Argentine boo xam ne nii suñ ma ko joxee danaa ko teg ci table président jéem a naa leen dem dimbale leen. ba ñu am une ambassade digne une ambassade boo xam ne dana dana leen régler seeni problème parce que problème yi bari na lool bari na lool. sëñ Cheikh est-ce que ba nga ñëwee aussi euh, Sénégal euh, ba nga nii. sa wàllu bopp euh, fexe nga aussi jege autorités yi. donc li ngay wax ni xam nga pour nga imprégné leen ci waram si situation bi nga xamante ne da nga koy dund. waaw jege gi amul parce que bi ma ñëw Sénégal man j'ai un soutien taalibe murid man bi ma ñëw Sénégal li ma andi mooy ñëw. sama kër ma nga Touba ñëw màggal si Touba bokk bi ma màggal si Touba bi màggal gi jeexee nag ñëw naa à bi ma ñëwee euh, jotuma dem pour jéem a jege parce que euh, man ni kon ni ma ko waxee je suis apolitique donc bokkuma si benn parti awma parti bu ma yor kartam awma dara parce que damay wax toujours maa ngi koy wax monsieur le ministre nee ko man li ma Serigne Touba defal doy na ma bu nit ñi gisee ngay jóg di wax nag ma ñëpp ko ne ko mën am sa préjugé mën na ah dafa bëgg ko jox dara dafa bëgg politique mais ñun sant nañ Serigne Touba bu baax ki teral gi ñu teral ak samp gi ñu samp en Amérique en Amérique latine waaw au Brésil ñu nekk amuñu problème àdduna bu tax dañuy daw di wër dara wala lu tax ñu ñëw fii nag mooy média dañu xam ne li mën a lijjën si réew amul beneen beneen pa beneen porte boo mën a jaar ba mu mën a dem donc tooba toogaay fii tey si loolu la bokk sama dem gi ma demoon 2STV Tounkara si loolu la bokk. maa ngi xool ba xam bokk sama temps ma am yeneen temps d'antenne dem ci yeneen i média man dafa jàllale message bi ba nga xam ne message waa Amir Ladine dana jàll ci ci ci ci ci ci ci ci ci média bi ba ñoom ñu mën koo yëg man fa man ci liggéey ngir dox loolu mais mais ministère affaires étrangères moom bu defoon liggéeyam xam ne ay sénégale ña nga fa ña ngay souffrir ña ngay sonn war na leen jege wuute leen ambassade jege leen à Sao Paulo ñu ubbi fa un consulat ubbi un consul général à Porto Alegre bi nga ambassadeur bi ñëwee nag ñu non yéen consul général day jël temps day jël administration les consul honoraire ngay maanaam dama koo ne carrément ñun bëgg ñu consul honoraire parce que man du ma nekk Brésil di fa liggéey di fa daan sama doole di jël ab bureau di ubbi di di accueillir di ñëw di teg naan sénégalais c'est bénévole loolu kenn du la ko defal fii parce que ñun dañu jóg ngir daan doole wut lu ñu indi suñu njaboot amuñu temps di jël bureau naan ñu ngi def ay consul honoraire bénévolement duñ ko def parce que ñoom ñoo ñu nekk foofu di ambassadeur liggéey bi ñu def defe ko bénévolement pourquoi moom ñëwul nekk consul honoraire bénévolement mu nekk un ambassadeur bëgg nag nit ki bëgg ñëw jël sa temps jël sa lépp def ko Sénégal jaral nañu ko mais nag dafa am lu jiitu beneen bi nga xam ne mooy sama deuxième partie ci lay ñëw wax naa la ko si daayira la ñu ko jëruñu daayira la mu am lu metti loo xam ne daf daf ñu dal suñu diggante ak si fay ñëw parce que boo xoolee Brésil sëñ Mamoro moom sëñ Mourtala ñëw na fa sëñ Abou moom sëñ Fallou ñëw na fa tout récemment donc euh, sëñ Ibrahima Khalil moom sëñ Fallou moo fa njëkk ñëw sëñ sëñ Cheikh Awa Balla di caat sëñ Fallou chaque année dafay ñëw sëñ Abdou Karim dafa yebal doomam muy soxna May sëñ Mbàkkam sëñ Fallou dafay ñëw waaye ko sëñ Mourtala ñoom ñëpp boo xoolee dal euh, këri dina yi këri këri yi nga xam ne ñoo ñooy cheikh yi ak waa nga xam ne ñoo nekk Touba ñëpp dañuy ñëw di ñu ganesi au Brésil waaw sëñ Bassirou dañu koy ñëw Brésil takkaloo ak Argentine Argentine amul am am ambassade am consulat au Brésil à Sao Paulo am nañu un consulat consulat bi nga xam ne moo nekk euh, à Sao Paulo ak bi nekk Porto Alegre ñoom dañ lay wax ne heure bu ngeen xamee ne ngeen am gan xam nga affaire gan affaire affaire affaire kilifa loolu Sëñ Tuubaa moo ñu ko defal parce que pape bi day dem. am passeport diplomatique am dem voyager bu demee ñu defal ko na defal ko jàll ci beneen dëkk mais pourquoi ñun lu ñu am muy suñu richesse muy sëriñ si suñu ambassadeurs yi mënuñu leen a fonkal mënuñu leen a bëggal mel ne dañu am ay hostilité ak sëriñ si sëriñ bu am passeport diplomatique ñëw au Brésil war a jàll en Argentine ñun taalibe yi ñu dem jëli ko ay aéroport terfe ko gànnale ko dalal ko hôtel muy xaar benn visa bu ko jàll Argentine loolu ambassadeur bi jël benn bout de papier ci machine am bu ñu ne ñu laaj passeport sëriñ bi sëriñ tel dafa war a dem en Argentine dimbali leen ma si ngeen defaral ko visa ambassadeur yi daf day lànk la dernière fois bi suñu abom suñu fàllu ñëwee jot nañ ci am ay ay ay ay erreur mais euh, amul solo parce que àdduna dafa gàtt te sëriñ Tuubaa li mu koy li ko li ko suñu borom defal kanam la jëm kanam la jëm fépp fu taalibe Sëriñ Tuubaa nekk njaboot Sëriñ Tuubaa dañ fa def fekki leen donc ñun suñu mënee jël suñu alal di leen jox di leen jox addiya di leen def lépp moom ne serait-ce que mu jël benn bout de papier ko consulat argentin bu nekk sa Paulo mu def leen visa ñu dem mu lànk loolu ñu ngi koy déploré lu ñaaw la lu ñuy déploré la te boo gisee ñun ñu jàpp na sax ambassade bu dañ koo bañ wala dañ ko contre ñun te lu ñoo bañ te lu ñoo contre te lu ñoo xeex tale bi suñ ci bàlle waaye nag li nga xam ne moom lañ bëgg mooy kilifa yi seen note verbal ñu koy defar non seulement defatul defarutul note verbal yi mais léegi dafay dafay dafay dafa dafa dafa dafa joxe une note au ministre des affaires ba nga xam ne yow boo demee kilifa Mbàkke Mbàkke ñëw war a dem en Argentine du la defal euh, maanaam euh, note verbale du ñu ko defal mu jëm Brésil dañ la ko defal nga dem Abuja donc nan la kilifa du jógee fii jóge Sénégal war a dem Brésil dem ba Abuja jël fa benn visa dem Brésil war a dem jàll Argentine loolu xam nga ne xel nangu donc ñu ngi ñu ngi ñaan autorité yi jàppale ñu si loolu man su ma amee benn vœu wax naa ko monsieur le ministre naa ko monsieur le ministre benn vœu wala benn bëgg-bëgg mooy ci Brésil mooy taalibe euh, sénégalais yi nekk si jàmm mais sama benn vœu mooy kilifa yi fay ñëw dañ leen defal des notes verbal des ñuy mën a jàll en Argentine seeti taalibe yi parce que fekkee ne tubaab yi nangul nañ ñu ko wax ñu ne su seen ambassadeur bi ndee kayit ma may leen visa moom mu lànk donc loolu day wane ne moom njabootu sëriñ bi ñooru leen bëgguñu ko te ñun ñëpp ay jullit lañ foofu mu toog daf fay jóge waxuma dara mais adduna bi sax yàggul waxuma laa nag man naab cinq ans lim man si def lu baax nañ si def lu baax ñun te lu ñoo contre te lu ñoo bañante te lu ñoo def hostilité nekkuñu ay protagoniste ak moom encore une fois ñun lu ñu tax a jóg lu ñu bëgg suñu ko defalee jàmm mu am suñu ko defalul nag fu ñu ko mën a joytoo ci àdduna loolu ko joytu loolu laa am si li may terminer si wàllu kilifa je pense que même euh, émission bi ci boppam euh, luñ ci desee bëreetul euh, soo amee euh, ab message parce que wax nga ko donc euh, donte wax nga sa bëgg-bëgg ak sa vœu jëmale ko ci nguuru Sénégal pour mu bàyyi leen xel lu nga xamante ne donc loolu ñor la donc loolu la di wax waaw su autorité sénégalaise dal li ma leen wax mooy ñu gën a xool gestuwaat waa Amérique latine ñun suñuy message egg siwul Sénégal ñu dañuy dañuy message Facebook di message WhatsApp lu ñu dugg si mais nañu dimbalee waa Amérique latine li nga xam ne yeneen émigré yi am nañ ko nañu fexe waa Amérique latine am ko parce que ñu ngi contribuer ci développement réew mi ñoo xam ne chaque si mois chaque un an ñu def ay vagues ñëw Sénégal vraiment nañ leen dimbale euh, bi nga xamee ne jamono yële euh, monsieur le premier ministre ñëwoon na fi waxoon nañu benn dige bu mu waxoon waxoon na ne. à partir de janvier Sénégal dana am avion boo xam ne ni Air Sénégal day relier Sao Paulo Dakar loolu ñu ko ci xaar parce que loolu ñu gën a yombal suñu dem ak ñëw. Mm-hmm. waaw te loolu aussi day yomb parce que man bi may ñëw Maroc laa jaar il defoo 9h Maroc euh, Sao Paulo 3h Maroc Dakar te su vol direct amoon ça te fait 6 h mas naa ko jël en 2011 avec Turkish Airlines jëloon naa ko 6h30 de vol ngay am ngir mën a relier Sao Paulo. donc loolu ndimbal la boo xam ne nii aussi ñu koy xarit ñoom euh, ñu xaalis ñaanuñu ay ay di audience ñu jox ay enveloppe non non ñun lu ñu bëgg mooy Sénégal yi am jàmm ñu am jàmm wutuñu poste wutuñu xaalis wutuñuy dërëm suñ tubaa teral nañu sant nañ yàlla bu baax encore une fois dóoruñu nekkuñ si ginnaaw gars yi di làqatu di politique wala di yooyu déedéet ku fa nag di jullit sénégalais danañ waxtaan ak yow ak koo mën a bokk muy président muy opposition muy ñeneen ak ñeneen li ñu bëgg daal mooy suñuy jàngara saafaru élection yaa ngi ñëw nag gars yi dinañ jël seeni carte danañ décider kenn ku ne xool nga mën a wooteel nga wooteel ko beneen message bi may lancé mooy di wax waa Amérique latine ne leen Yegle TV mi ngi Sénégal ici à Liberté di def liggéey bu am solo ci immigration na ko ñëpp di suivre après dinaa leen jox am nañu application am nañu rajo am nañu télé sur internet donc danaa ko joxe ñu jàllale ko di ñaan suñu borom defal leen jàmm defal leen tawfeex di remercier encore une fois monsieur le ministre Thierno Lo parce que moom dossier Amérique latine daf ko ñor vraiment liggéey na si liggéey bu am solo na ko ñëpp félicité remercier ko ministre le ministre Thierno Lo vraiment def na si liggéey boo amaa am solo bi mu ñëw aussi dalal na ma déglu na ma wax naa ko aussi d'alliance sénégal yi ñu l'alliance yooyu aussi dana ko jàllale incha allah ci biir réew mi ñoo ngi leen nuyu Abdoulaye di leen siyaar di leen félicité leen encouragé di wax salaamaaleykum rahmatulah. waaw sëriñ Cheikh balaa ngay euh, salaamaaleykum sama laaj bu mujj mooy donte wax nga ko doo def politique. Mm-hmm. Euh, ndax mën nañ yaakaar ne élection yi ñuy dëgmal 2019 mooy élection présidentielle bi foofu di ngeen wote di ngeen waaw élection ba mu laa doon wax nee naa la inscrire nañ seulement taux d'inscription bi rek dafa ndaw dafa ndaw trop parce que les inscrire booy xool lu sax la moitié bi nekk inscrire wuñ parce que nañu journée yi jox baaxul nañu jox ay jours yu gàtt trois jours fii deux jours fii deux jours fii Sénégalais yi sax moo ñu ñëw ñoom ñëpp bindu donc loolu ñu koy évaluer bu baax a baax a baax suñuy joxati ay ay ay jour daal na ñuy woo dañu laaj ñu leen di indiqué ndax Sénégal yëpp di bindu et puis bindu sax mooy seen avantage mooy suñu avantage parce que ñun bëgg nañu bokk ci élection yi di ñëw bëgg nañu voter donc ñu ngi woo nag ñëpp ñoo xam ne nii am nañ yaakaar ne électorat amul laajte mën na leen amal njëriñ ñu ñëw foofu campagne mi ngi ubbi donc ñu ngi explication spéculation yi mi ngi am. waaye nag incha allah gars yi danañ voté danañ jël seen carte xam li gën ci réew mi ak li gën ci a régler seen problème ñu votel ko incha allah. ci gàttal électorat Amérique latine am na solo. dina am solo ren. donc nañ leen nañ leen bàyyi xel. nañ leen bàyyi xel kon fa la ñuy euh, jeexalee donc euh, sunu émission. Hmm. Serigne Cheikh Ndiaye euh, jawriñ ñu am mbégte ak kontaante donc dalal la sunu émission invité du jour fii si Yegle TV. jërëjëf di la jaajëfal. rawatina sa ñaari tànk yi nga yëkkati ba ñëw fekk suñu fii. donc euh, di jox euh, daje suñu téléspectateurs yi euh, semaine prochaine. ak notre invité fii ci Yegle TV. merci ngeen jëf.